laa ilaaha illallaah yow di doom kontaan naa ci yow ah ni daal nga def defar nga ba mu baax de yuy sëgg it ba mu seere yow li la dese moom mooy bés ba mu sës rek tey foog ba mu wow nii la xale day bëgg boppam yenu àdduna yow daal du la yaa ngi koy def ci teraanga waaye nag dama kontaan ci yow ndax fa nga ne la nga fay liggéey dara umpuñu réew mi moom ñëpp xale yi jigéen dañuy foto seen xol ko photocopie duñ ko sax légaliser bu jëree sëy ñu ci sëy ca ndax dërëm bii ni nga koy lijjanteeg sa yaay nag neex na ma torop ndax ñëw na fi di ma tàggu màkk waaye kii nag sa doomu ndey nag xam naa bi nga ñëwee lim la njëkk wax mooy sàmba bi wëndëng bi safu tawa ñàkk jom rek a tax mu dugg ci waayam jooju sàmba booy boobu nga xam ne wëndëng la bon salté tilim sama torte lay wut ci réew mi te may yéeg avion di wàcc di ko ji lu mu sol maa ngi maa ko jënd bàyyi ma ko mu sonn benn yoon dama yónnee ba ca maamul sow ca Ndakaar mu di ko ñëwal ay yére yu rafet buy dem xew daal di sol ànd ak ay moromam sonn ci moom muy benn doom bii heureusement ba ma ba ma ba ma ko amee moom donc kii su amoon rakk tey mu mel ni fu ma jëm mu toog benn sàmba buy taxawaalu xaw ma lu mu dóor ci këru àdduna waaye lu fi waaye ren ne sa loxo lay nàcc kii bëggul lu baax kii lu bon la bëgg xa ca kaw yow dangaa yéene sa ndey lu bon yéene woo sa yaay lu baax mukk dama bëgg nga ubbi sa bët bii xoolal mami sala xoolal ma xujja gay boo duggee seen kër rek kontaan da koo defar ba mu baax waaye yéene woo sa yaay mukk lu baax toppal ma sàmba boy bu bon boobu yow Seydina lu mu am Seydina lu mu la mën a bodi bu baax sax mënu la koo jël xaw ma sax nag bëgg nag jël sa bët bi wépp fu sori may moo gën la koy jox Seydina mi nga xamante ne benn yam ak benn mbubbam la am ci muy pare nga sama yaay mi sax mën naa dama wax moom ndax kilifa la waaye yow mii laa bëgg a jàkkaarloo ci fulla gis nga xol du ñaar du ñett benn rek la te sama xol bii Seydina laa ko jox gis nga man du ma sa moroom laa wax ba nga naan ma ay sama xol laa ko jox et eh, puis sama kër la te maa fiy doxalaa ah. sa bàyyi rëdd ko maa rëdd kër gi laa la wax fii ni ma neex moo fiy am mu lay neex muy naqari Seydina moom caqe te du yàgg ba ngeen doon yéen ñaar ñàkk jom yow yaa ñàkk jom koo toroxal nga waaye mënoo maa toroxal cim kasar rek yàlla gi nga doon. xaw ma jege si wax ak yow ci fulla ci fulla ndax damaa war a mën a wax ak yow nag yow biisu yow lan la yow état bi sama yaay nekk yow yaa tax mu nekk ko yow am na yoo xamante ni bu ko sama yaay def waroo koo jàppale yow man ak ñoo bokk génération te am na yoo xamante ne yaakaar naa war nga koo mën a dépasser sa bopp gis nga borom alal yooyu ngay wax ak borom matériel yooyu gisuma leen ndax mbëggeel du lool hmm. gis na sama xol bi du benn te du ñaar du ñett benn kese la te sëy dinaa laa ko jox hmm. sa borom alal boobu ngay wax nag nga seet yéen ñaar ngeen def waaye man xoolal bu ma ko sax indi ndax soxlawuma koo gis te bëgguma koo gis pare pare naa xam nga yow da nga bëgg lu bon bokk lu bon di ak moom yaa xam man dama gis sama lu baax donc yéene la ko soxlawuma ko bëgg la koo jox dalay neex nga jël mu naqari la nga bakk fi sa moroom nag ñëw jël ko gérer ko ba mu mat gis nga loolu sa problème la toogal fii